mais da ngay dañuy étudier euh, de fond en comble les causes le pourquoi bi tax soubassement boobu am ba mu commettre forfait boobu nga xamante ne c'est c'est di chose d'irréparable à vie non maintenant euh, et c'est compliqué xam nga ñu ma xale xoola kooku jëloon doomu wujjam parce que wujju bi am na doom bu góor mu sànni ko ci teen bi nekk en complicité parce que nee na goro bi wujju bi la gën a bëgg parce que wujju bi am na doom bu góor gis nga loolu ndof la loolu ndof la parce que yow ki nga ko yow mi ko ko teg yow ki nga ko teg sax moo la gën a noppalu yow mi nga xam ne à ah, vie même suñ la tëjee. Mhm. ah euh, sa ngiru dund. wala mhm. ñu ñu dóor la wala def la lu ne. dootoo nekkati mais à vie image yooyu. Mhm. chaque fois bi ngay def acte bi day des si yow. donc yow moomu suñ la tëyeewul sax mën nga di continuer di commettre ay meurtre à vie parce que yow dof nga ba. da lay pousser parce que loolu moo lay moo lay foofu noonu. est-ce que yaa booy euh, jotul. nit ñi ñëwaat. nit ñi ñi xoolaat nit ñi gungewaat gàttanuwaat ñi nga xamante ne ñu ngi ci néegu sëy yi yàlla def ñuy sëy ak seeni borom kër yàlla mayu leen bant ñi nga xamante ne am ñu bant di jël nakkar di teg ci kaw ñooñu noonu di leen gaaruwaale di leen di leen di leen mettal di leen nakkaral est-ce que loolu tamit euh, jotul nit ñi xoolaat chacun de nous se met à la place de l'autre pour voir bu doon yow la naka la lay mettee mhm. xam nga dama bokk ci benn kuréel boo xam ne kuréel international la la dernière fois ñuy def benn panel ñu ma waxtaanal ñu parce que yow chaque fois da ngay ne ñun jigéen ñi nañu bëggante ñun jigéen ñi nañu bëggante mhm. mais loolu daf la traumatiser wala lan la mën na ko absolument mhm. parce que dama koy subir à longueur de temps sama yeneen morom jigéen yi di ko subir à longueur de temps tey soo nekkee jigéen di politique jigéen ñi ñoo lay xeex góor ñi jigéen ñi la ñuy utiliser contre yow di mhm. doo falu dëgg la am na suñu yaay bu créé woon fii parti parrainage. dëgg la mu am fit loolu créé ko mhm. mais gisoo benn jigéen bu ànd ak moom. Mhm. jàppale ko pour mu nekk présidente de la république. Mhm. su fekkee te amoon yëpp caractéristiques yëpp. amoon na kii bi yëpp pour mu mun a mu mun a dem. mais malheureusement du dem. du xam-xam moo la fay teg mais dañuy jël jigéen def la ñu nekk say wujju ñoo lay xas ñoo lay contre soo bëggee responsabilité tey soo nekkee ci rajo nga am émission bi keneen yor beneen émission danaan est-ce que diw mi gënuma baax la émission est-ce que ëpp ma audience mhm. est-ce que gënuñu ko bëgg soo nekkee directrice rajo nga nekk femme gouverneur nga nekk femme ministre mhm. nga nekk femme commissaire de police nga nekk femme lu mu mënta doon chef d'entreprise rek yow soo jiitee góor ñi cër bi lañ la sax jigéen ñi duñ la ko jox dëgg la mhm. jigéen ñi ñun ñooy iñaanante suñu biir mais parce que loolu nag à la base moo tax il faut diagnostiquer notre éducation. lépp ci mhm. lépp ci traitement bi la. lépp ci départ bi la. Mhm. parce que soo nekkee ñu ne doomu bàyyi xoolal doomu bàyyi yu góor yi ñu ñuy bëggante mais doomu bàyyi jigéen ñi ci gën a bëri. jalousie dañuy def ay genre soo defalee lii sa yaay war naa defal lii sama yaay. Mhm. soo xoolee ne yaayu keneen war naa xool ne yaayu keneen su ma amul su kii nekk na lii war naa nekk lii kii def na lii war naa def lii loolu et je ne le dis pas parce que me concernant mais c'est une généralité que nous sommes en donc c'est dans la construction sociale mhm. dañ ko juddoo ñu ñu koy mooñaaleel te du lu yàlla wax ci alxuraan mhm. du lu yàlla wax ci bible du lu yàlla wax ci benn religion mhm. wala aada ak cosaan boo xamante ne lu ay nit toog di ko tënk rek la di dévaloriser la femme di def la femme contre la femme di def toujours les hommes au-dessus de la femme xoola da ngay nekk meilleur élève ci classe mais yow meilleur élève boobu doo ko continuer parce que il suffit que nga am borom kër rek mhm. commencé am doom rek da ngay dem ba li nga bëgg dootoo ko man mën dootoo ko daal dañ lay wax jigéen dafa war a sëy tu finis par laisser tomber merci beaucoup mhm. tey damay seetaan ci benn télé de la place benn xale bu jigéen mhm. mu ne dafa jàng ba nekk ingénieur am ay responsabilité yu mag mais mu mujj nekk ci mbalit bi di bale ci mbedd yi parce que nee na euh, diplômé la woon et que mu dem ba xamante ne mënul toog rek croiser le bras war na mën a am dara mu dem dugg ci liggéey boobu liggéey boobu c'est une c'est un métier valorisant mm-hmm. métier bu noble la mm-hmm. parce que ay nit tilimal nga leen di setalal amul prix mais dañu war a revaloriser même salaire ñooñu